yàlla euh, li ëpp solo ci communication bi euh, laaloon enjeu yu département yi am ay ressources am ak enjeu fichier électoral bi nga xam ne du yoon euh, acteurs yëpp yu bokk ci élection bi ak ñun ni askan bi kenn gisu ko te kenn amu ci vision ak ak ak contrôle wax dëgg yàlla li moo nekkoon l'essence même de la communication peut-être li may li may dolli mu nekk li nga xam ne wax dëgg yàlla lu ñu ñor la muy gis nañ ni événement mars yi ba mu fi amee ba jóge fi dañoo gis président bi nga xam ne dafa génn taxaw ak askan bi ñu njortoon ni xool na askanam dégg na askanam comprendre na jafe-jafe yu askanam nekkee président bu génn yëgal askanam ne lii fi amoon moom du seetaan mu amaat fi te wax googu du wax gu ndaw ndax lu weesu weer yooyu Sénégal def na ñaar ba ñetti commande arme yu am solo yoo xam ne euh, jël na ko pour équiper davantage ay ay ay ay nitu takk deram jógewul foofu wàccee na ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon officier ak ak euh, kilifa yi nekkoon aussi bien dans la gendarmerie que la police mu nekk ay nit yoo xam ne nit yu am euh, gisin lañu ay nit yu dal lañu ay nit yu patriote lañu ñu ñu def leen wàccee yóbbu leen frigo fal ay nit yi nga xam ne nit yooy seen ay naataango di leen présenter comme des personnes yi nga xam ne c'est des carriéristes yi nga xam leen waxoon rey leen seen yaay sax pour mën a gën a yokk ils vont le faire euh, yemul foofu nag. Euh, président dem na ba France fan yii weesu yëgal sénégalais yi ni euh, moom ragalul moom mësta ragal même ba mu yorulee jumtukaayu nguur sax ragalul woon en ce instant bi nga xam ne dafa yor jumtukaayu nguur di jumtukaay yooyu du jumtukaay pour nappante ak pour xoxatal sa sa askan jumtukaay yi ñu ko dénk la pour mu liggéeyal askan bi te yàlla def na ni ba mu fi toogee ba léegi liggéeyaluñu may fàttali nag euh, ndaw ñi ak askan bi yëpp. ne état bii ñu am en face ki ko jiite muy le président Macky Sall c'est un président très violent ak ni muy waxee ak ñun ak ni muy jëfee ak ñun gis nañ nag ni mu ngi mel ni kuy pousser euh, la classe politique ak ses adversaires mu leen jëm a pousser vers la confrontation ñi war a bàyyi xel bu baax a baax euh, itte bii nga xam ne am na ko ak projet bii mu nar a doxal bëgg taal réew mi ñun bëgg ñu réew mi tàq ñun ñëpp soon suñu sago réew mi si jàmm lay nekk ndax jàmm mooy base bu ñu mën a liggéeyee ab dëkk waaye nag bu ñu taxawee si jamono bi nga xam ne dañoo am en face ki nga xam ne ñu bëgg faggaagal bëgguñoo ñoo toroxal dama ne wareef la pour ñun ñi askan bi ñu tam am suñu ay matuwaay pour mën a protéger suñu bopp ba pare euh, jël suñu sécurité ak suñu sécurité njaboot. may daaneel nag si fàttali askan wi que élection enjeu élection yëpp euh, sama naataango yëpp wax nañ ko enjeu bi am solo la waaye ñi xam ne enjeu yi mooy que ñun dañoo war a commencer jàng euh, di voter Sénégal boobu ba léegi dafa mel ni ñun mënuñoo voter dañuy voter euh, ngir di xeex wala di xuloo kenn dañuy voter contre des personnes euh, on vote jamais ci wàllu vision ak ci wàllu ay programme maanaam Sénégal dafa mel ni ñun tàmmuñu loolu Euh, donc war na nag tey ñu commencé jàng voté ci kaw li nga xam ne mooy lu ñu amal solo te enjeu yi clé door tudd léegi enjeu la nga xam ne dafay impacté suñu dund ak suñu dund ay njaboot wala ñu bàyyi xel bu baax a baax kan la ñuy jox suñu kàddu maanaam sa kàddu dafa am solo trop te kàddu googu amul njëkk gis naa fi ñu bëri di wax waxu 5000 francs waxu 10 000 francs dégg sax ay kilifa yi wax ni ku leen jox xaalis jël leen ngeen lekk wax boobu du dëgg xaalis ku koy joxe di ko sedd di ko sànni que liggéeyu ko sàcc xaalis boobu ku sàcc xaalis la ko jox sa xaalis boobu moomu loo ko waroo ko képp ku ñu gëmul war ñoo jël xaalisam loolu mooy dëgg nañu nañu voté suñu àqulaay taalaa xam ne képp ku ñu jox njumtukaay ci nguur lépp lu mu def en sommes responsables responsabilité boobu nag dañ ko commencé inculquer suñu ay ndaw xam leen ñi xam ne amuñu amuñu prix ku ñu jox mille nga voté pour 5 ans sa prix mooy 1000 francs par année ki nga xam ne sa prix mooy 1000 francs par année sa prix dëgg-dëgg 80 francs la par mois dama ne ginaar sax jarul loolu nit ëpp na loolu kenn waru ñoo fay pour di voter nañu bàyyi xel bu baax a baax ci vote yooyu te vote yi warul nekk vote yi xam ne ko war a bàyyee nii rek jàpp ne ay enjeu présidentiel la amul benn enjeu avec la présidentielle Macky Sall du bokk loolu c'est clair loolu jarul ñu siy werante mënu see bokk euh, enjeu bi amul enjeu 2024 enjeu ndaw yi la ak population yu nekk ci gox yi ñu jël seen ay gox defal ko seen bopp ñu bàyyi jëx gox yi ay ministre ay DG yoo xam ne yu di fàtte seen ay gox donc enjeu bi aujourd'hui c'est c'est jàng voter jàng élire ak surtout ñu départir euh, des politiciens véreux yi xam ne mosuñ ñoo